ñuy lay nuyu madame Fatou Warkha Samb maa ngi lay fay ñuy fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey jii nga xam ne ñoo ngi màggal bés bu ñu jagleel droit à l'avortement kii di activiste bi di militante pour le respect des droits des femmes tey jii Sénégal mu am benn combat bi nga xam ne activiste yi ñu ngi ko taxawal ñuy wax ne dañoo bëgg ñu daal di légaliser lii di avortement médicalisé lié à l'avortement et à l'inceste fu ngeen tollu ci xeex boobu. wax rek ñun dañoo lancé campagne bu ñu dippee faites entendre votre voix maanaam waxal ba ñëpp dégg la mm. jëmale ko ci pour ñu mën a autoriser mm. pas légaliser wala dépénaliser mais autoriser maanaam may pour ku xam ni dafa nekk victime de viol wala d'inceste bu bëggee dindi ëmb boobu laataa muy egg si ñaar fukki téeméeri fan ak ñaar fukk ñu mën ko ko dindi mm-hmm. donc loolu nag ci la ñu nekk parce que gis nañu ni fii ci Sénégal Euh, jigéen ñu bëri ñu ngi ci loru ndaxte da ngay nekk sa papa tëddee la wala nga dem ay samba boy dal egg si sa kaw nga jëlee ci ëmb mënoo supporter ëmb bi parce que ni nga def ba am ko dafa metti mhm. nga bëgg a dindi ñu ni la déedéet parce que amul benn loi bu koy maye nga dem di ko utal di ko def ni ñuy waxee avortement clandestin ay gàllankoor jàppale ci suwaan nga ñàkk ci sa bakkan ñu yóbbu la ci ndungu siin wala sax nga jëlee ci ay mm, laaba yoo xam ne ni sa giiru dund la donc loolu nekk lu am fii ñu koy jànkonte chaque jour donc looloo tax ñu taxaw ñun tey pour wax pour ñu dégguñu donc nag milité wuñu bokkuñu ci ñuy xeex pour que nag ñu daganal avortement bu mënti doon ak fu mënee doon ñun bi ñu bëgg mooy ñu autoriser ñu rek en cas de viol ak inceste ñu mën ñu koo may tey jii ngeen lancé benn campagne euh, fan ngeen toll ci campagne bi tey campagne bi euh, nan ngeen ko defee. waaw campagne bi campagne bi moom ab campagne digitale la réseaux sociaux yi la ñu utiliser xarala yu bees yi fa la commencé tàmbalee ndaxte. Euh, bi mu fa tàmbalee ñu gis ni plus de cent mille personnes ay junni junni nit ñu nekk Sénégal ak bitim réew doon ay sénégalais dugg nañ ci ngir bëgg ñoom it wax ba ñëpp dégg leen parce que xam nañ ni nag affaire bi moom ab réalité la fii ci suñu réew. ci noonu commencé nañ def tele yi ak journal presse écrit lépp wax fu ne waxee nañ ko nag fu jàpp yaakaar nañ ni dinañ ñu dégg ñu ngi ciy wax te boobu léegi am nañ ay nit yu bëri yu bokk si ñun ñu ngi am ay écho yu favorable mhm. jàpp nañ ni daal mbir mi ab waxtaan la sottante xalaat xool suñu kilifa yi ci wàllu diine lan lañ ca mën a jël indi xool suñu kilifa yi ci wàllu aada lan lañ ca mën a jël indi parce que damay faral di wax ni xeex bi teguñu ko ci xeexu justice maanaam du waxtaan wala du waxtaanu droit. Mhm. parce que bu doon waxtaanu droit rek la peut-être mën naa ni du am sa raison d'être ndax Sénégal dafa ratifié lu ñuy wax ni protocole de Maputo te ci biir protocole bi dafa am article quatorze buy wax ni jigéen bu ñu violé wala ñu am nga nekk victime d'inceste am nga possibilité wu dem def avortement kon Sénégal nag daal di koy ratifié sans réserve te ñun si suñu code pénal am benn euh, nuñ koy waxee article buy wax ni. Euh, loi yooyu nga xam ne dañ ko ratifié ci sur le plan international ñoo ëpp prévalu loi yi nekk suñu réew donc li tax ñu appliqué wuñ ko kon mooy peut-être ñàkk waxtaan beeg ñàkk juboo bi looloo tax ñu nekk si di waxtaan suñu kilifa yi ndaxte xam ñu bu dee dispositif juridique rek lépp yemb na mais dañuy jëm a waxtaan rek ba trouver consensus ngir ñu mën ñu ko may rek ba fii Sénégal képp ku nekk ci victime de viol wala d'inceste di nga mën soo ko bëggee def avortement ci anam yu mucc mbaa waxtaan googu euh, wax nga ko tout à l'heure yéen a ngi wax ak kilifa diine yi mbaa am na ci ñenn ñi nga xam ne ils adhèrent euh, à ce projet waaw waxtaan bi nag du campagne bi sax moo ko tàmbali waxtaan bi depuis 2013 la ndaxte Sénégal dafa am lu ñu naan task force benn task force bi nag daf di association bu regroupé lu ëpp ci fukki association juróomi société civile bi mhm. ñoom ñoo doon waxtaan depuis 2013 moo tax ñu tënk nañ ay arguments sur le plan religieux sur le plan juridique même sur le plan sanitaire te li ñu xaw a jot ci argument yooyu mooy te ñu xam ko mooy en tout cas bu dee waa kër euh, jàngu bi ñoom dañu catégorie ci sujet boobu mm-hmm. il faut le mais bu dee ci wàllu l'islam bi nag am na ay uléma yu bëri yu ni d'accord nañ ni mën nañ autoriser avortement médicalisé bu fekkee préjudice am na bu dee tooñ nañ ci jigéen ki te ñun jàpp nañ ni préjudice weesuwul euh, viol wala inceste mhm. mu ni bu dee loolu am na mën nañ def avortement médicalisé balaa ñuy egg ci cent vingtième jour yi mhm. maanaam junni as ñaar fukki fan loolu mu yembook ñeenti weer te ñu xool ni sax sur le plan médical sax bu fekkee ni docteur yi dañ lay wax ni kat avortement bu ñuy war a def bu weesu ñetti weer c'est risqué kon donc ñun avortement bi ñu bëgg ginnaaw bi ñu waxtaanee suñu kilifa yeeg li ñu xam ak jot fakkaati ko ci xam-xam mooy hmm. bi nga xam ni nit ki bu nekkee victime de viol wala inceste ñu may ko ko balaa cent vingt jours yi di mat hmm. su ko defee nit ki du ñëw parce que si l'islam ak yenn ulema yi dañ ci cent vingtième jour bi ci la ñuy insuffler am bi maanaam ci la ñuy dugal nit ki ruux bi wane ni kii mu ëmb nag bind nañ ko hmm. du dëgg donc laataa boobu ruux ba nekkagu fa donc boo dindee ëmb bi mënuñu ni da nga rey nit ci diine boobu ak yenn ulema yi. Mhm. donc loolu yëpp suñuy waxtaan ak seet xalaat moo tax ñu xam nga. donc kon waxtaan bi mën nañ ni mu avancé. wax nga ko ñu tambali ko maanaam campagne bi lancé ko en 2013 tey jii ndax gis ngeen ci ay jéego. gis nañ ci jéego ndax tey ñu ngi ciy waxtaanee fépp foo tourné ñu ngi ciy waxtaanee maanaam au début sujet la boo xam ni dafa tabu woon ndax boo nee avortement rek ñu ni subhanallah kii la si yëpp mais tey. wax nañ li ñu bëgg wax nañ ni ñun avortement médicalisé bi ñuy ut bi ñuy sàkku bi ñuy ñaan sax à la limite bu ko jaree mooy mhm. ki nga xam ni dafa nekk victime ñu mën ko ko jàppale ba nga xam ni balaa cent vingt jours yi mu mat ak yeneen ak yeneen aujourd'hui discussion bi mu ngi nekk donc je pense que loolu avancé la bu yaatu tey bu demee ba ñun ñii ñuy toog ak ay kilifa diine ak ay imam di teeg ñoom ba ñuy sotti seen xalaat kon tey mbir mi mu ngi avancé te jàpp nañ ni suñuy nguur ñi ñu jiite en tout cas ñun rek la ñuy déglu ñun ñooy société bi ñun ñooy société Sénégal ci wàllum diine ak ci wàllum aada lan la ñu wax buñ ko bëggee je pense mën ñu ko yombal. réalité euh, culturelle sénégalaise ak li nga xam ne mooy poids de la religion ñoo tax tey ba euh, loi bi Sénégal mënagu ko appliquer lan moo ci taxawaayu nguur gi. waaw nguur gi de daf ñuy seetaan mu ñuy déglu <laughs> je pense ñu ngi ñuy déglu et puis ñu ñuy déglu loolu tamit day wane nii nguur moom du lu yomb surtout bu dee nguur bu mel di dëkk bu Sénégal bi nga xam ni dafa am ay réalité aussi yoo xam ni dañ ko war a tenir compte ndaxte nag ñu nit dañu am suñu aada suñu cosaan te loolu it dëgg la ñu gën ko tenir compte jël ko boole ko ci mbir mi xool naka la ñuy def nga mën a am lu ñu bëgg tout en tenant compte de ces réalités là donc je pense que xëy na looloo tax nguur gi bëgg ñu waxtaan rek ci suñuy biir et eh, bu ñu waxtaanee suñu biir daal xam naa ne ba trouver consensus yàlla mën na sottil mbir mi. tey ndax seetlu ngeen tamit ne euh, combat bi activiste yëpp euh, ñu ngi dóorandoo di xàccandoo. waaw wax dëgg yàlla au delà sax nag des activistes parce que na xeex bi du xeexu activiste kese de góor ñi jigéen ñi papa yi yaay yi député yi ah ministre yi ñëpp ñi mën a wax ci kaw ñu dégg leen ñu ngi wax ñu mën a wax ñu bañ a mën a wax ci kaw ndaxte seeni posture peut-être permettre leen ñuy wax ci kaw ñuy wax suuf. ku si nekk def na ko sa xeexu bopp parce que fait entendre ma voix lañ ko tuddee kenn ku si nekk mu ngi def ay jéegoom pour wane ni mbir mi kat lu lu légitime la hmm. donc kon ñun weetuñu ci daal kon au la nag de ça euh, activistes yi si ñëpp koo xam ne nii euh, sentir na concerné aussi question yooyu rek ñu ci biir. gis nañ ne avortement clandestin bëri na euh, ci dëkk bi ndax yéen am ngeen ay chiffres yi nga xam ne. am na ci ay avortement clandestin yi nga xam ne euh, c'est lié à l'inceste et au viol moom loolu nag bëri gee tax ñuy def étude moom ñu ngi ci kawam di def étude yoo xam ni xam naa ni ay fileki fan peut-être di ngeen gis résultat bi ci wane ni ci avortement yooyu ñuy jot ndaxte xam nañ ni fii ci Sénégal li sabab euh, nderte yaay bokk na ci li huit cinquième cause bi maanaam bu ñu ne benn ñaar ba juróomeeri cause bi nga xam ni mooy cause de mortalité maternelle avortement clandestin daf ci bokk. Mhm. te gis nañ ni aussi jigéen ñu bëri lu toll ni 17 pour cent ay jigéen yu nekk ci nungu Sine avortement clandestin moo leen ci yóbbu barki Demba Ndiaye gis nañ lu ëpp ci téeméeri fétiche yi ñu fekk ca décharge de bës donc xam nañ ni donte que ni interdire nañ bi fay ci Sénégal am réalité la fi ñu ngi koy wéy di def maintenant. ñooñu di ko def ak cas yu yëpp ñu koy def ban pourcentage moo ci nekk lié à la l'inceste wala le viol loolu ñu ngi ciy def gëstu yoo xam ne fekki fan dinañ ko fësal mm-hmm. mais li am solo mooy nit ñi bërki démboo ñaar rek dégg nañ ay ka benn cas ci benn raison bu ma dul wax xale bu ndaw ñu war ko yóbbu nungu siin rek parce que dafa rey doomam à la suite euh, d'un d'un viol donc kon luñ mënti wax xam nañ ni mbir mi lu am la lu existence la réalité la te nit ñi ñu ngi ciy souffrir moo tax ñu bëgg ñu accorder ñu rek cette autorisation exceptionnelle en cas de viol et d'inceste. Mhm. wax ci leneen muy planification familiale ndorteel ba amoon na combat gu rëy gi nga xam ne activistes yi ak it euh, ñii di sage-femme yi amaloon nañ ko euh, population bi mën a adhérer euh, ci mbir yi ndax ba tey am na ay diwaan yi nga xam ne ñoo ngi hostile à ce projet. waa diwaan moom diwaan spécifiquement du ma ko wax donte que ni day am fu muy ëpp fu mu dul ëppee mais loolu dafay am relation par rapport ak nombre de personnes baa ñoom it seen ko ne xam ne ni tey bu ñu doon ut ay pourcentage Dakar dina bokk ci région yi koy gën di def parce que moo ëpp nit en fait mais di am solo mooy di bu ñu xoolee dinañ seetlu nii am nañ avancé bu baax par rapport ak jël benn ba nga xam ni nit ñi comprendre ñu woon. bo waxaan euh, euh, planification familiale ñu foog ni dañ la tere jur wala dañ la kii alors que loolu du woon mbir mi li ko taxoon a jug te tax a jug ba léegi mooy naka la ñuy sorienté suñuy jur te sorienté suñuy jur googu pour tenir compte ci wér-gu-yaramu yaay ji wér-gu-yaramu doon bi ak kàttan gi famille bi am pour mën a entretenir seen doom mhm. et je pense que boobu léegi ñu ngi def avancé yu bëri ñi ñu ngi koy utiliser ñu ko bëgg ñeneen ñi nga xam ne nag ñu ngi réticent ba léegi ñoom it ñu ngi réticent parce que tamit euh, ñëpp moom mënoo ko am waaye tamit ku xëppi xool di nga xam ni noté nañ une très grande avancée ci ci xeex boobu mhm. tey coow li euh, nee na cour ci code de la famille activistes yi bëgg tey ñu daal di xoolaat boobule code de la famille lan moo waral tey jii ñu ne nañ ko xoolaat. waaw code de la famille boobu nag ndeysaan ñu ngi ko def ci at ñu yàgg boobu juddooguñ sax wante buñ ko liiree yenn saa yi ñu gis ci passage yoo xam ne nii suñu fit bi day day daw. parce que injustice bi dafay flagrant day feeñ ba mu kii ci benn misaal rek tey est xam nga ni man bu ma benn sam benn ma masamba ëmbaloon par exemple. Mhm. aw ma lenn loo xam ne nii mën naa ci sukkandiku pour topp ko su ma nee masamba yaa ma ëmbal bu bañee amul lenn lu ko ciy topp. Masamba amul benn obligation pour reconnaître grossesse boobu bu dee takkuma ba pare Masamba moomu euh, man suma ma nee ko yow la sax bu ma porté plainte mën naa si tëdd parce que action d'indication de paternité dañ code bi da koy bañ tu vois donc ba taba tey itam Masamba moomu bu juddoo man awma sañ-sañu jël xale bi def ci turam tant que moom bëgg ko te tey bu ñu demalee ba ca kanam ba Masamba bëggaat reconnaître doomam amul lenn lu ko koy tere xam nga loolu dafa flagrant mm-hmm. te boobu benn point la rek ci yeneen i point yoo xam ne nii buñ ko fi doon wax tey temps bi duñu ko permetre mhm. pour diir que rek ni am na ay mbir yoo xam ni daal euh, war nañ ko remettre en cause ak réactualiser ko ba nga xam ni daal jigéen ñi dinañ ci gën a gën a gën a gis seen bopp. xeex boobu fan la toll est-ce que am ngeen yaakaar tamit ne autorités yi dinañ leen may boobu ndam am nañ am nañ ci yaakaar ne ndax duñu xeex ñun dong même si autorité yooyu euh, sax seen xeex la ñoom ndaxte euh, injustice bi moom wala inégalité bi moom du ñun ñi rek ñoo koy subir ñëpp képp ku nekk ci Sénégal nga nekk jigéen nga nekk góor mais surtout nga nekk jigéen nga nekk ministre nag nga nekk député loo mënti doon yow tamit yaa ngi subir injustice boobu donc xeexu ñëpp la mais boobu léegi ñu ngi ciy wax gis nga ni suñu yaay yi ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy jiitu def ci ay liggéey yu am solo ñu ngi ciy wax yaakaar nañ ni tamit gars yi dinañ ñu déglu fekk yi diir. kon yéen daal da ngeen jàpp ne ak ak yelleef euh, jigéen jëlu ñu ko woon en compte ci code bi ñu am tey Sénégal des desoon na desoon bu baax a baax mais nag mën nañu tamit nangu ni peut-être ca at yan ñu tolloon ca période ba ñu tolloon mais su ma lay wax loo xam ne ni ay at année quatre-vingt soixante-dix la je pense si je ne trompe pas kon xam nga ni tey bu ñu eggee ba deux mille vingt c'est normal ñu bëgg ñu defaat mise à jour bi parce que jamono day dox. Fatou Samb lay jaajëfal bu baax a baax. maa leen di jaajëfal. Merci Mayfat, beaucoup. Mhm. Mayfat moom militante la pour le respect des droits des femmes activiste euh, tamit euh, merci beaucoup.